pourquoi ñoom ñu bëgg gëm ñu bëgg def que ni c'est un enjeu pour le Sénégal Juan Branco yow yaa ngi wax léegi nga ne voté wul mënul fexe ba décision de justice yi nga xam ne sunu ay organe juridictionnel dañ koy jël mu changé comme conseil constitutionnel bi mu waree gën a jegeel datu élection bi bi ko président jàppee le deux yooyu yëpp c'est-à-dire pour pour pour pour wax la ne la c'est un complexe d'infériorité bu bu bu waa Pastef di manifester à l'endroit des de ces personnes blancs mooy de ces blancs là Mélenchon ñëw na fee wax ay bêtises ñuy tàccu barke alxuraan mu ñuy tàccu ay Juan Branco lan la mën a ñëw di jàngale Sénégal nga am ay avocats de renommée ñoom Maître Bamba Ciré Clédor ay ay ay ñu ñu taxaw Juan Branco ñëw relégué leen au second plan moom la nit yi di déglu moom la nit yi di xaar pour lan complexe la man yëguma ko sax léegi laa koy doog a yëg si suba bi may ñëw laay déglu revue de presse yi nii may dégg affaire Juan Branco xam na paraît-il université la ko naroon def après gars yi gars yi indi ñëw mu dem def ko si sees donc nañ ressaisir gëm suñ bopp. te xam ne li fi li fi nekk ci ay xalaat yëpp ak niñ koy tëggee yëpp ñun la war a doon mais pas benn benn guignol ñëw pour di di jéem a jox nit ñi ay leçons de morale wala di recadrer il faut arrêter avec ça dinañ ko Birahim foofu ca CICESD bu Juan Branco Maître Bamba Cissé ñoom ñi nga xam ne ñooy avocat yu Ousmane Sonko lu jëm si wàllum actualité surtout ak li nga xam ne xewoon nañ fi revenir na ñëwaat nañ ci muy mbirum Adji Sarr mais également lu jëm surtout ci affaire conseil supérieur de la magistrature nga xam ni foofu euh, ca ca CICES ci ci jëm ñaajo plutôt si dialogue bi bokk na si point yi nga xam ne déggoo amu si woon mais aujourd'hui lu jëm si wàllum politique euh, ki nga xam moo di Maître ko écarté bu ñu waxee présence su conseil supérieur de la magistrature. ce débat ci mm-hmm. présence ou non bu présidence ci conseil supérieur de la magistrature soulevé nañ ko ci assises yi amul consensus entre des ñoo xamee ni ñoom loolu la seen xam-xam màcc ay juriste ay avocat gis nañu fii euh, ku ci mel ni euh, Babacar Diop bu euh, nu ñu koy weeti di di juriste également du forum du justiciable la mu ci wax dafa rejoindre li maître Bamba Cissé wax ñeneen doon ay magistrat ne ni présence su euh, le président de la république ci biir conseil supérieur de la magistrature wàññiwul dara mais lañ ci gis mooy bu ñu ko deful ñuy wax juste euh, euh, nu ñu koy te république des des justes des des juges plutôt loolu lañ ciy bañ mais comme ñoom ñi puristes yi en la matière ñoom ñoo ci mënul a déggoo yaakaar naa ni du ñu nii ñoo ci mën a déggoo tamit ci présence bi ou non fenn laa d'accord ci kàddu Juan Branco fenn rek fenn non ci fenn xam nga la mooy lan ci fenn fi mu waxee ne ni c'est le pool d'avocats de Sonko et de Diomaye ñoom ñoo xeex pour libération réew mi. foofu donc laa d'accord ci moom nit ñi de xanaa nit ñi dégluwuñu ko. loolu mooy Juan Branco mooy maa ngi ñëw nii ci yéen waaye man duma lenn parce que ñii ma dendal ñoom ñoo liggéey liggéey bi man liggéeyuma ci lenn kan mooy Juan Branco moi je l'ai toujours dit ici je n'ai jamais défendu ce gars. ni may bañee ci ay Juan Branco mais man dinaa teqale Juan Branco ak Maître Bamba Cissé bu mu dendoon non dinaa teqale Juan Branco. Alioune Badara euh, maître euh, kii euh, nuñ ñu ko weeti Ciré Clédor Ly ak mais poolu avocat wu Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mais ay somite ju du du baro ñoom ñoo fa nekkoon bu dee dañ naan non avocat bu jógee bitim réew mais maître Tine bitim réew leen le avocat la ca baro bu Paris moo ko gën a xarala téeméer yoon kuy Juan Branco woo ko ñu naan ay conférence ay étudiants ñoo ko woo pour ànd ak moom fële ci université heureusement waaye université am xel ne ni lii duñu ko nangu ci suñu biir université bi pour mën a génne benn Juan Branco le porter au en triomphe alors que moom ci boppam mais il traîne un passé bu extraordinaire mu ngi ci mbirum góor jigéen accusé nañ ko fi viol ba tëjlu ko fi ba teg ko ay daan yoo xam ne ba léegi teggeeguñu ko ci mbirum viol mu ne non consentement mutuel ak yeneen ak yeneen c'est-à-dire ce n'est même pas une référence moom ci boppam euh, créer situation la la mën même dans son pays nga jël ko bëgg ko teg benn genre héros il kii da ngay jëlee un Juan Branco muy wax lu ko neex man noonu lay jëlee benn bourgeois buy ñëw bu teyee bu mu weex bu suwaa mu ñu